جعلت ربي بالمختار ثم بهم أن يصعب اليوم نسا والآر سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفى لدور أسرار سألت ربي بالمختار مختار ثم بهم ألا يقربوني بسوء خورار سأل ترابي بالمختار ثم بهم ألا يواجهني بالمكر مكار سأل ترابي بالمختار ثم بهم ألا يخواتني بالقدور خان والدور سألت ربي بالمختار ثم بهم أما يواجهني بالمكر ما كانوا سألت ربي بالمختار ثم بهم أما يرى من خفى لدرس رور سأل ترابي عبد المختار ثم بهم ألا يقربوني بسوء غاور سأل ترابي عبد المختار ثم بهم ألا تروا من جنى بفي خدي نور سأل ترابي عبد المختار ثم بهم alla iwa jeni bil makrima kawru sal trabiatil muhtarisum e mabiim alla iwa jeni bil qadri khadawru sal trabiatil muhtarisum e mabiim an tantafi an fufa bil yawma fi yawru سعى التراب سلا من أدائمة حمي له ما خو مي الله ودور سعى التراب سلا ترقى تغربوني إلي أدن يا وأو رحم لم قور أما أبا بكر صديق سيدنا فلل القرآن قدوا في غرار وباني رفاخل مختار دوم في ليقنا ومؤه ينوي إلى النصير وأن أكون الله أخداء مرتهيا أتى وليا أن خدا ينفاه يور وأن أكون سيئ dan abidan abadan وخادما قلمة تدعو وتختار يا رب سل على المختار الدبي أمر رداء له خصم وتكرار وابلي الدار بالمختار ثم بهم ألا يقال لتلمه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 بآله وصحبه كما مل الأقداه اللهم بأقوج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبهم وعلى وصحبه وبهم يا من به وبهم الإسلامان وأليم رضوان كنت لي بما أروم وجل آسي الأمداء منها بالمكتوبات إليك وإليه وإلى أيبائك آمين يا رب العالمين وبصر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى أروفها أي كتبت أو قرأت aw nusirat ilayha ila aljannati lati wuida almuttaqun wajalha fiha mima tataxanna bi auruka al inu amin ya rabbal alamin wa innaka la ala xuluqin asimin وسغت برب العرس سي الجود والأفي مع المصطفى والله لي مخلد سفي وسغت مع المختار الباري بالله ودو الإسلام من بي خدما لخوي وقاني بإيسوئي ولي كان بالمنى ولي خد إخلاصا بي خدما سهوي ولت خديما في امتداء محمدا عليه صلاة الله ما سان لي نبي ولت خديما في امتداء وسيلتي الإسلام الله مولي سافسوي وانا ونعى كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه هائس الحلو وجه وسول واسع واسل له شهب بهم أخناني الله عن قسوه wasiimun wa wahaabun wasiyun wasilatun ila xayra min sikruhu xadmaha laxwi wa fiyun karimun wahidun walaw ata bihi li siwana ma lasul jawri bi roxyi wali nabi lil bara ya rasulu man bi lisana saqa xasa sulmi wa sadwi widaadi li rabbi wal muqafa wa isbihi wa manabahum wallahu li kaana bil afwi wa surtu bi baqin sirtu habdan la u bihi لي خدما لخير الخلق بالمكس وسفي الأمور داما كل الدهر يقلو لأصاب من قلبي أوى ويملو إذا إلى سبي نبي قائدا لهم سرور متى ينتخ بمت هي مجريو أهبت يا داريني سهب النفا بهم إلى خيري كل من ليس يبرو أبلو إلى كونه سيدا بهم وخد وخلق فار والكل جسو أسود على الأحداء مسابهم في دجا وكل سجاء رهس الكفر يجسو أسود متى يقصد لهم صوت جرو يبجبان يبكي ويمها تجرو أخدم المختار aya xaadimal muxtaari laa tansa sahbahu fa man yansa um fal mathum mathum mu xataw abu bikirin siddiq su siqi wal wafa rafiqu nabiyul mustafa al qaara anbaw abu afdil faroq sarwaaw naadirun bihi tasadinul mustafa is yu sansiw afisa bi man daa لأن ابن عفان سلايا لو نور ثم النور نهم المبوي أبو سبت المختار وهو ابن أمه علي على فقتير نهم المجر أصاب رسول الله إني خدمه مهبا لكم في الله والله يقله نهني أبلاي نهم المؤمن عن المين أمقتير والأق أقمنا من الله رب الحرس أبقي صلاته بتسليمي للمصطفى المخجل اليمي xasida yi ngay jàng moom si kër la boole julli moom te kum fal du folli moom dalay teral ba aljana xasida yi ngay jàng moom si kër la booleeg julli moom te kum fal du folli moom dalay teral ba aljana xasida mooy jëmmi njanaaw ñooy yëkkati laa fi njanaaw ñooy déglu ñooy dunqi njanaaw ñooy àndandoo bàjjana xasida yi day tërbiya te moo ne it day tarqiyaa kuy tagg xayrul anbiyaa yow sa kër ga daa lay ajjana xaside yi day tarbiyaa te moo ne it day tarqiyaa kuy tagg xayrul anbiyaa sa kër ga daa lay ajjana sëriñ bi sa digg yàlla raw na xel xalam te raw njortu man seenu diggante dama ëlëm ñi am ñi xam yàlla ñëpp yaa ci raw sëriñ sépp am ndam waaye yow yaa ëpp ñëpp ndam sëriñ boo fi gis yàlla ay yëf la ko may yow nag yàlla dala sopp ba jëmmam la la may sa bët bii ngay gis ay xol mbàkke yow mi la ak sa noppi bii dégg ndeey man laa la far ragale yaa ngi gis xol yi di gis jëf yi dégg wax yi nu wax te mel ne déggoo gisoo lii koy doy na laa ragale fun jëkk yaa nga fa fun jëm noo ànd di wéy àndul ma daw yow sax moo sëriñ Tuuba ku koy daw lu koy rawale tey jii nag fu nekk yaa nga fa sëriñ bi yaa daj këpp àdduna ji te daj alaaxira jee fam nu far rawale sëriñ Tuuba ma gàdd bu wér man ba géwal sama ndënd mi di kañ sëriñ baa ki xëy boole ñëpp daan bi fóore ki kaang ak ñëpp ne jàng fi jëriñ sëriñ Tuuba seexal ku jàngul aw araf ñu ne moo fi daan bi nga yàlla ne du ñoo yàlla ne bunti yàlla noo ko yor Serigne Touba aw fu kenn foogul ñu bokk ne moo fi daan bi yi wolof ne lii nu bañ ku ko yor du wéy Serigne Touba jéggi leen ak seeni yëf ñu ne moo fi daan bi buuri tubaab bi ne nanu ma Serigne Bamba nun ñi ñoo ci des mu yëmu ne ngar seeni fit dem ñu ne moo fi daan mu xëy déglu déggul fenn kuy baj bajee bañ mu ñibbisi Touba këram ndaanaan ngi lu yàgg daan sëriñ tubaab tubaab bi ne tubaab bi sa arme bi wute naag bii ngeen di xeexe man bamba xam naa fa ngeen sosoog fa ngeen di jeexe bismillahi waahidil qahaari mooy samay fetal mu rey fu jaari kitaab rabbi kaana li wa kuntu yéen tubaab yi yéen a ngi may saf mbottu yi bajantu subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun